jàpp nañu ki ñu jàpp ne moo faat faatu ki ne gay keroog àjjuma ci ngoon ci Pikine Rue ubbi l'Observateur Xaasimu Ba la tudd ku xamoon ki ne gay la ndax moo ne woon superviseur bu établissement Mansour Sy di service transfert d'argent gi ndéem faatu ki ne gay doon géré keroog ba muy faat xale bu jigéen bi yéenekaay bi nee nañu enquête de feeñal na ne dem na ca place ba ñaari yoon ci suba si la fa njëkk a dem doon ko yóbbul ab versement juróomi million a versé waaye ba mu demee bari seetal nu lijjante loolu yi ba nuppi di ci soog a teg leneen yéenekaay bi nañu tontu ba neexul xasi mu ci la génnee dem yoonam ca ngoon nga ci la dellusi waate ëndaale ab paakaam ci la faatee faatu ki ne gay ci anam wu ñaaw wi ñaawlu ci réew mi l'observateur nañu moom ci jëmi boppam moo wax enquêteur ne jam na xale bu jigéen bi fanweeri jam-jami paaka ak juróom-ñaar ci tànk la ko njëkk a jam faatu ki ne di yuuxu mu paaka ba dàkk naq bi continuer vue ba mu defee la muy def bu nuppi journal bi nee nañu dafa dellu këram bàyyi fa xaalis ba paaka ba summi yëre yu mu soloon solaat yeneen yëre ñëwaat ci mbooloo mi àndandoo ak ñoom di leen jooyle ki nagay jëf mu def nee na li ko ci dugal moo di jabaram dafa mu soxla woon xaalis ñeenti yoon yéenekaay bi nee nañu dem na ko ca multi service ba yore woon paakaam nëbb ko ci biir yéram doon xaar foofu wéet heure bu xoolee gis fa ni a leen li ko weer nag moo di bi cooy yi demee këram dañu fa fekk paaka bi mu rayee ki nagay fekk ci armoire am ay yére yu taq deret fekk fayit xaalis bu toll ci un million neuf cent nee na leen li des ci xaalis bi jabar ji la ko jox ngir mu jënd ci ay yére solu ci ci ngénte li togg ci it añu ngénte li li ñu naan bi muy rey Fatou Kiné Gaye Fatou Kiné dafa ëmboon libération nee nañu loolee amul amoon na jëkkër daal waaye jotu ëmb mi ngi doon fa xasimu ba mi rey Fatou Kiné Gaye ñeneen ñu ñu rey ci réew mi ci anam yu doy waar yéenekaay bii di bés bi le jour nee yamul foofee ne bokk na ci kenn ku ñu faat ca jàmm gën bokk na ci faatu la xamal ñi ko waroon ko rey bokk na it ci Fatoumata di ndaw si faatu ca Maroc te ñu ne jëkkëram moo ko rey ndax fiirange politiku Sénégal bu doon ak fiir la ñu ne jàpp nañu ko teg journal La Tribune bi ne coalition Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom a defi ay njumte yu ne weñ ba suñu moytuwul nañu defante bi ñu nee woon ci seen biir léegi kay ñoom ñëpp seen yitte mu di yeewi askan wi di benn bokk yaakaar moo di nan la ñu a def ba bokk ci wootey député yi seen yaakaar jëpp nag mi ngi wékkee ci juróom-ñaari juge ya ca conseil constitutionnel Sud Quotidien nañu ñoom it di juróom-ñaari sage conseil constitutionnel yi kenn ëpp leen problème jamono ji ëllëgu li yeew yi ëllëgu benn bokk yaakaar ak compagnie mi ngi tege ci seen i li ñuy rumandaat mu di génne liste nationale bokk yaakaar ak liste nationale bu yeewi ragal moo di dëkk bi salfaañoo Mamadou Lamine Massaly salfaañe na carte gi yëral xët mu njëkk journal la mandat Massaly taxawal na parti politique union pour une nouvelle république la ko tuddee ca ndaje moom ko doon siiwale yéenekaay bi nee nañu amul lu mu fa yàkkul opposition bi ci réew mi direct news nañu union pour une nouvelle république juddu na parti politique la bu bees bu Mamadou Lamine Massaly taxawal teg na feuille de route am di li ko tax a jëkk Souleymane Ndiaye njiital synergie pour un développement durable yoonu natange keroog la woon ci meeting bu Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportuaires yoon ñu teewlu ji xët mu njëkk journal record xooli xibaar ba fa nekk Boubacar Camara di footballkat bi ñu bëri ci Sénégal amoon yaakaar ci ne dina ñëw football ci équipe nationale bu Sénégal te waa France mujj koo ab agent moom joueur bi di Ousseynou Niakhaté nee nañu ñu yéenekaay bi muy Aliou Cissé di fédération Sénégal bu football nañu wax sénégalais yi lii dëgg ci kaabu Boubacar Camara